maa ngi tudd Sékou Touré. alors Sékou dégg euh, fii fan la ñu. fii dëkku Aaneen la. Mhm. alors fii lu euh, ñu fiy bay. Euh, fii mhm. ñu ngi fiy bay ay bisaab. Mhm. ay garab ma ay ay mango moo fi nekk. ak ay lan dañ fiy def aussi ceeb wala. waaw non non bay bay bayum ceeb géej nañ ko def lu lu lu ëpp lu ëpp ñeent ñeent fukki at. ak affaire waaw kii la foofu nekk quoi. waaw arbre waaw ok léegi yéen lan mooy seen jàmbat yéen. Euh, sunu ma sunu mairie bi sunu mairie bi sama sunu maire dafa signé ak contrat ak waa Barbafor projet Barbafor directeur bi di monsieur ñaa bu ñuy ñëwee ñu daal di ñëw jël sunu suuf sunu suuf si ay ga sunu suuf yi ay garab mango lañ ci defoon garab mango yooyu nag at bu ñu koy jaay di ci dundu di ci dundaale sunu sunu sunu njaboot ñëw nañu nag jël nañu suñu suuf daaneel sunu garab yi te nee nañ dinañu dédommager depuis 2014 ba léegi kenn joxuñu dara. topp nañ leen nag ba léegi kenn joxuñu dara toog nañu ak maire bi Alioune Sarr toog ak euh, kii président domanial muy taay dem nañu ci sous-préfet sous-préfet sax def na ci pa bu rëy boo gisee pa bi ñu sous-préfet bu Noto Jobaas Oumy Jamanka mhm. def na ci pa bu rey parce que bu ñu jaaxle dem ci moom moo tax ba ñu def constat ci nu garab yi. léegi waxaguñ leen dara lu dal seen xel. ba ba tey waxuñu dara lu dal suñu xel dañoo ñëw daaneel suñu garab yi sant def constat. loolu bu ñu demee bu ñu toogee à deux mois ñu dem si sous-préfet ñu wax ko sous-préfet daal di wootee pour eh, Barbafort woo mairie woo ñun borom tool yi sous-préfet daal di créer benn commission ñu doog a dem def ay constat ci suñu tool yi xool li nga xam ne lañu lan ñu yàqal ah fu mu toll ba tey kenn ku ne lu ñu la war a jox ba tey ñun xamuñu ko loolu dañu ko nëbbu léegi toog nañu ak ak ak maire taxu mu sotti toog nañu ak eh, eh, président domanial muy taaj taay taxul mu sotti toog nañu ak directeur eh, eh, Barbafor muy monsieur ñaa le 19 mai la ñu toog ak moom mu nañu léegi nañ ko may weer weer boobu nag dina gisee sous-préfet dina gis def naa parcours yooyu mais taxul mbir mu sotti ñaa nee nañu directeur eh, projet bi nee na ñeenti barrage la ñeenti barrage yi ñu ngi koy defaree genn wàllu milliard genn wàllu milliard boobu nee na bi mu déggee ne ba tey sunu su maire mairie bi joxuñu sunu maire bi joxuñu dara moom mu metti ko mu ne léegi euh, euh, euh, un pour cent bi nga xam ne waa waa maire bi war na jox waa projet bi directeur bi nee nañu nee na maire bi un pour cent moom nañu ko jox donc genn wàll milliard la ñu defal ñeenti barrage yi un pour cent bu ñeenti ga ba ñeent un pour cent bu ñeenti un bu ñeenti barrage yi muy genn wàll milliard directeur bi nee naan suñu maire bi na jël xaalis boobu jox ñu ko ñu suñu suñu suñu aju faju mais depuis lor ba tey ñu ngi tëdd ci suñu kaw kii ba ñu ko jox. léegi lu ngeen di sàkku lu ngeen di sàkku ci euh, kilifa yi gis ngeen leen léegi nii kan ngeen ko bëgg a seen message. léegi fu mu toll nii fu ñu ko bëgg a yeggale ñu ngi ñaan président de la république muy président de tous les Sénégal muy Macky sal nañu nañu na wax ak suñu maire bi muy ministre du commerce Alioune Sarr. ça fait depuis 2014 ba léegi ñu ngi topp suñu suñu suñu suñu suñu suñu euh, indemnisation mënuñu koo am. boo jëlee suuf nit ci ci ci domaine na parce que dañ koo jël ci dañ koo jël ci domaine national nee na ñoom ñoom moom mhm. jël nañ ko mais suñu garab yi nag est ce que yoon wax na nit boo jëlee garabam aussi doo ko war a jox dara ñun si lañ doon di dund di dundalee suñu suñu njaboot ah ñu ngi eh, fukki fukki fukki fukki ñeent fukk ak ñeent ak ñeent ñi waaw fukki fukki famille ak ñeent waa ñoom ñëpp seen suuf dugg na ci c'est Sékou Touré waaw Barbafor moom moo wax carrément ni dañu leen procès laay joxe koo yàqal fay ko koo jël suufam delloo ko suuf ñu ni waaw ñu signé léegi li ñu yàqal sax fay ñu ñu ko waxuma la ak suuf si ah ba nag ñu bëgg a lal ay procès ci kaw procès bi daa mën a nekk mënta nekk dañuy fay suñu àq ak suñu yelleef lii adduna bépp xam nañ ni lii du yoon suuf su toll nii nga jël ko ci nit joxoo ko dara waxoo ko benn. parce que mënatuñ ci dara mais nañ ñu jox suñu àq ak yelleef maire bi moo ko diggee bëgg a sàcc suñu xaalis jaar ci suñu kaw loolu dañ ko dul nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo waral coow lii paa bi du ci moromu kenn ba tax mu ñu yàq am ñu ne du wax amul Alassane Gueye Makan Gueye jur cinquante et un garab ak ñaari ma ak ñaari guyaab ak ñaari limon ak ñetti siyaan ak ñetti siyaan ak ah, bisaab ak ñambi garab genn ku ci garab gu ci ne garab yi man garab gu ni daa ko jaay ñetti junni par weer eh, parat dégg nga li la wax ñetti junni parat garab yi boobaak léegi bañ ko maase léegi léegi dara joxuñu ñu ko walbatiku ñam bi jëm si fekkoon bu di dañ ko dara newu fi ñu walbatiku ni dañu nuy fay mangu ñaar ñaar ñaari junni ak juróomi téeméer ngu ñaari junni ak juróomi téeméer ngay jaay mangu ñetti junni loola aw yoon la eh, mbay sekk ne di leen leen kalaami ñe ñëwoon ci yéen Walfadjri ñëwoon ne dina leen kalaame waaw loolu loolu d'accord naa loolu sa suñu yoon newu ci noonu li nu bëgg li nu bëgg moo di nun tool yi noo ko moom bi ñu dikkee di fi def projet mën nu ko bañ waaye suuf saa ngi ni kenn wattiwu ko benn consiral wattiwu ko benn consiral wattiwul nootoo suuf si muy benn leneen li des ñu indi ko ne dañ leen di domager mairie bi d' accord ni moo nuy fay luñ ci yàq luñ ci ci yàq d' accord ci directeur projet bi ñëw ànd ak noonu ca loola defuñu ci dara ñaari at ba dugg ñetteel bi at nu di leen laaj guddi bëccëg mën nu cee jot te moom sunu suuf moom sunuy garab yéen projet yi ñuy lal bëgg a lal fee projet ah, boo xam ni lanu daa béy ci jor gi ñu ni dañ koy fa boole ca moo noon bu ñu jëlee sunu xur jël sunu jor fu nu jëm te ñii ñuy waxal kenn amu fi ah, fepp suuf mboolem ñi Aliou Sarr di waxal am benn suuf amu fi dégg nga ne mboolem ñi Aliou Sarr di waxal ko am suuf newu fi de kenn waaw loolu doo nga doy ah makka àlla ji makkan gi waaw